boo demee Mbacke Bari donc fekk mhm. muy xasida goo xam ne da ciy wax ne ginnaaw bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne man ngaa dem te bu ragal benn lor mu ne nag maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma aar ci loru nit loru loru loru seytaane ak loru jinne waaye ci biir xasida gi dégg nga wax ju daw yaram ji wax yaa barru kun lii wala tuxjul nii dunyaa wa uxraa wa tajaawaz anni mhm. yow yàlla nag ma nekkal waaye bul ma gàcceel bul ma ma rusloo te nag ma jéggal mhm. Mbacke Bari nga xam ne fi la sëriñ bi jógee nga xam ne mbind yu bari na ko ci fekk mu waxal boppam ne ca laa génne gaaw fukki fan ak juróom-ñett ngir liggéeyal yonente bi alayhi salaatu salaam boo demee Mbàkke Bari it këram gi ak jàkka jumaa ji gis nga ni ni mel ci image yi ngeen di gis. Mhm. nga xam ne jàkka ji muy defar ak kër kër gi muy nekk nga xam ne kër googu ci la jullee fajari gaawam boobu. Mhm. bi sur keroog la daam rañaane bari fajare gaaw ba maaxal labaraari dajeeg tubaab yoo jeewal yendu foofa fanaan fa boo dee rëy na duñ ko siiwal. Mhm. xam ne fajari gaaw di 10 août 1895 la sëñ Tuubaa mujj duggaat ci këram googu. Mhm. nga xam ne bisam boobu sëñ Pape murit bu nekk war na koy xalaat. Mhm. gis nga Serigne Touba dafa am benn programme bu mu ñu jox boo xam ne ci léppam lay dox ci jàmm da ngay fàttaliku bisu fukki fan ak juróom-ñett ci la Serigne Touba xëy génn këram ci la ànd ak tubaab bi mu mu woote loo ñun bisu sant dañu ci fàttaloo tiis yi ci nekk. ak tartar yi ci nekk ak coono yi ci nekk te bis la boo xam ne ku xam ni mu demee xam bis boobu xam ne yoor yoor keroog bi sëñ bi jullee fajar ci mbakki bari taxaw di xaar maam Thierno mu ñëw bi mu agsee rek mu waaxu jub si ci kër gi la jot ndigalul bu tàbbati ci kër ko mu daal taxaw tudd yàlla boromam laa ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu daal di taxaw ci buntu ci diggante jàkka ji ak kër gi mu taxaw fi mënatul dugg waaw mën nga xam tabbi jotu jot na ndigal du duggati ci kër gi am na tàbbi ci kër gi day day day arab ci moom waaye fekk na ci ëllëg la ko jiitu woon waaj lu nañ yenn gaal yi bagage yi yenn yi defarlu ko ca la laaj loo naaru góor tudd awnullaahi ñen li ko naa awnullaahi taxawal ko ci digg penc bi ji ma lay wax mhm. jëkk loolu di ñëw ajuma ji bi mu ba noppi ci pencu Mbàkke Bari moomu la toog fere yu bari wër ko nga soxna fat ji mi am na ci ràññeeku Mbàkke Bari na gorom ñëpp toog di ko déglu mu di leen nettali gaa yu baax yi ak seen jaar jaar ba muy agsi ca wax jooju ba mu koy jeexal nga xam ne dañuy wax ne boobu sëñ bi dafa càpp ndaa yoon waaye ba muy wax dana ñokke taxaw daan na sama boroom dafa indi yan boo xam ne ku ko mas na jëkk yan bi rombut say wóom yan boobu dinaa ne ko dënkul ba ñëpp di ko seen danaa ko yenu ba ñëpp di ko seen mhm. moo waral ajjuma jooju la loolu am gaaw ba nag ba mu laaj loo naaru góoram woowu tudd awnullaahi nga xam ne dañ ko defal teg gi jege dafa weex tàll comme xaalis ñu teg ci mbalaanum sooy gal yi wor ko kérok señ bi dafa bolé ay xaftan ak jalla bi nga xamné yi dafa suut mu tak xar kanam bi ba lu lu néew di feñ jalal jek jamaar ji wor ko fofé it mu def nak nag bu yéme bu daw yar bo xamné moy jotaayam bobu mu togon ak Cheikh Mamadou Fadal ak mam cierno borom daaru ak Cheikh Mamadou mustafa mm-hmm. te waxon borom daaru ñetti batam yoy ba mi wane ginaaw da ko rikk na nga muñ na nga gore na nga na nga am job bis bo xamné bu bu yéeme la njabot gep ñi ngi taxaw penc mi fess dal sëñ bi war ci naaru góoram woowu fas yéene génn gis nga Cheikh Mouhamadou Lamine Baara moom sëriñ Fadilu nee bi sëñ bi waree naaru góor yi la ko suñ borom yónni Jibril na ko neel Ahmadou Bamba lu mu bëgg mu ne ko bëgg naa lépp waaye nee na bi naaru góor yi dox tuuti rek bay romb jàkka ji la ko suñ borom na ko may naa la lépp nga mm-hmm. xam ne kon li muy wut mbakki bari googu fi la yanoo yan bi fi la engagé fi la ko borom moom joxe li mu am moo tax Cheikh Mbacke Bari la ci jub xarajte min jolofin lillahi fi safarin akrim bihi safaran qad xaasa kula yeddi xarajte fi sabti fii shahi rabihu doxa bi jay sasin wala jeewal ji talay sarati gis na andi na ci dat bi andi na ci weeri nga xam ne ci yoor yoorub digg wi digg yu gàmma la xam nga safar digg yu gàmma lay dajal moo tax mu fi shahi rabihu doxa bi jay sasin nag ci atum 1313 waaye bi ngay ñëw nag da ngaa mel ni gaynde goo xam ne da nga da nga da ngaa mel ni gaynde guy bëngeer sëñ Cheikh Joral moom a nettali ne sëñ Cheikh wax na ko ne sëñ Fallou wax na ko. Mhm. mooy weneen waxtaan nga xam daa dem ba ca yoonu booba euh, damaa gis barki démb ci ci ci ci Abdoulaye wa Xadimi Rasul muy téere sëriñ boobu euh, ki sant Sourang. xaw ma sànqe sànqe sànqe sànqe sëñ bi laaj na ko nu fere yi def mu ne ko dafa mel ni xaw nañu am jeexintal. ci ñëggalu kanam ak yëf yu diis ci ñoom ndax tàggatoo bi nga xam ne loolu bokk na ci euh, melokaan yoo xam ne sëñ bi da koy waat ngir ñeewantug taalibe bi mhm. waaye teewul mu waxaat ci lu lu loo xam ne li tax Mbacke Bari yéeme waat Mbacke Bari la sëñ Tuubaa assuré na day dem day dellusi waat mhm. gis nga la mu def ca euh, Ndar wax comme sëñ Ahmadou njaay maa bi Mbacke Bari la ko njëkk a defee fa la mbakki Mbacke Bari la woo sëñ Fallou sëñ Modou Moustapha ne leen liggéey bii may dem damay dem dellu siwaat ndax liggéey bi ma bëgg yéen a ma koy defal sëñ Fallu nee na foofee la ko sëñ Tuubaa joxee jumaay Tuubaa ji nga xam ne leen gis nañ ko ñoom jumaay Tuubaa ji sëñ bi demagul ci géej kon foofee la assuré woon ne day dem day day dellu siwaat day dellu siwaat kon béréb la boo xam ne mën nga ne bi ci jëkk mooy sëñ bi taamu na ko ba xam ne suuf si dana attan nattu bi ba ci topp sëñ bi seet na ko ba xam ne bu fi génnee ci suuf soosu jëm ci feneen suñ borom dana ko andil li muy bëgg mu mën koo am loolu lépp ab ab ab natt la ci. ba noppi it seniñ bi wane ci ci Mbàkke Bari nga xam ne taalibe yi war nañ ko bàyyi xel bu baax damay wax ne nii ñuy def fi ne ku mag ku dem aji. mën a dem def ku lu di siyaare ji ay baqin ak di siyaare ji xoot ak yeneen béréb yi. Mhm. fi damay wax ne fex day mel ni day nekk charte boo xam ne yàlla na ci murit boo xamoon bu ñëwee màggal dem dem Mbàkke Bari wala balaa màggal mu dem Mbàkke Bari ndax lan fa la Sëriñ Tuubaa takkee woon gaalam ya mhm. la takkee bagaasam ya فلا باي شيخ عبد الفضل شيخ عبد المصطفى شيخ محمد لين بار سيدي محمد فلا باي مار جابوتم جيب سخنا مريم كنت سخنا فرديان جابوت جيب مو باي لين فوفي تي مباكي بري نغا خامني بو غيسي خسيد اك اسير خسور خلل والله لا ان يتفارغ دا فاي كونسيرن مباكي بري اك توبا دا توبا بي 1895 ميم اتي سيغ بي ريك لا كلير دا نيو جوخي اور دو ني تال مباكي بري في مباكي بري دنجو تالو دك لا بو خامني بو تاخاوي تي بينتي ما خول 1895 تاي دك بي بي سيغ توبا генي njabootam gi yëpp maam Thierno ànd naa njabootam gi génn dëkk ba amuñu fu ñu mën a dëkk ndax Touba booba Touba bi da ko tere nga xam ne boo demee ci bataaxal boo mu bindal Maam Mor Jaara ca la doon waxee fal yakun ayaal maa Ibrahima fii Touba in amkana wa illaa fi ay makaan insha allah bu fekkee Touba dana jàppandi na ngeen nekk Touba bu Touba jàppandi bu béréb bu soob yàlla kon gis nga loolu ni lu ko gën a metti seen njabootam gépp dëkk booba la génne woon muy Mbacke Bari kon dafay béréb boo xam ne dafa am histoire ci ci yoonu murid mm-hmm. ñaata ñaata sëñ Touba fu mu nekk ñaata lañ fay dotti ci alquran ñaata lañ fay dott ci ay am ndaax tagg yonente bi alayhi salaam waaye kàngam mi mag ñu bari mag ñu bari ñoo xam ne ci yoon wi nga xam ne tey fa lañ féetaloon fekk fa Serigne Touba jaayante ak moom avant sëñ bi di di di di di dem ci tukkeem bu réy boobu ci géej googu hmm. foofu it ci la assuré waxoon ne dal la ladi xadd zanna ni assira xayru lasi yassirul asira ki réer mooy ki ma jàppe kon jàpp kon ñi jàpp ne prisonnier la ñu réer lañ hmm. maay ki ma jàppe ku dul ki nga xam ne day yombal jafe kon dal la ladi xad zanna ni asira ki ma jàppe ne dañ maa jàpp daa réer man ku ma doon xayrul lasi yu yassirul asira mhm. boo ma jàppee ne kenn laa prisonnier la da ngaa réer man may ki nga xam ne maa war a yombal li ñu doon waxtaane léegi mhm. moo dagg buubi jaam yi mhm. moo may indépendance réew mi may lislaam ci boppam mu moom boppam parce que booba bu dee ñaari pouvoir yi fi nekkoon tubaab yi lu mat a faagaagal faagaagal lu ko mat a maasale maasale no waaye Serigne Touba jóg na taxaw wax ne kon man maay kiy yombal lu jafe ngir bëgg liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam foofu mu génne woon di wax ne ku jortan la daraa ma taxoon a jóg loolu yàlla ak yonent ba nga jóg di jël ay gaana jëm si ci man yàlla dana la gàcceel kon dëkk la boo xam ne euh, Mbakke Bari sëriñ bi moo ko sancaloon boppam fa la jógee dem ci liggéeyam ba mu doon liggéeyal yonent bi alayhi mhm. salaatu salaam gis nga nii mu dajeeg nawet defe naa bi sëñ bi dem ci géej gi booba ab nawet la dajal ndax tool yi tool yi Mbakke Bari yooyu demoon na ba toll ci ñu yor koo góob ñu sàmm si sàmm ko ci guddi gi maanaam lu metti la maanaam sëñ sëñ sëñ Pape Sidi sëñ bi sëñ bi mosu dund daray noflaay xoolal li nga fi bàyyi ci ay dugub ñu bàyyi ko tool yi ba mu jekk war koo dundale njaboot gi taxawoo leen ko dañ ko sàmm mhm. bàyyi ba guddi ñu jël nag yi dugal ko ci tool yi mhm. sàmm ko taal dëkk ba tekki muy Mbacke Bari waaw Sëriñ Touba dund na ay tartar foofu loolu loolu loolu rek la dund Mbacke Bari gii te Mbacke Bari diggante ak Touba mu di 60 kilomètres sëñ Fallou xam ne nag moom la yàlla dogal na bi sëñ di tàggoo ak Cheikh Moustapha bokk na ñeen doon tàggoo moo yeesalaat Mbacke Barigo dafa amal beneen histoire mhm. nga xam ne sëñ Fallu dem na ba julli jumaa ji 63 door a demaat nag Mbacke Bari mhm. nga xam ne jeexintal yëpp moo ko wane waat mhm. moo wane waat fii la jàkka ji nekkoon fii la néeg bi nekkoon bunt bi fii la nekkoon nga xam ne ndax dafa mënoon a seetlu Cheikh Abdoul Fadal nga xam ne bis boobee la muy xew ñukk ga maam na borom daaru doon ñukk di wujji sëñ baag baagante yooyu yëpp boobu mi ngi nekk ay images yoo xam ne ñu ñu koy bàyyi. boobu ay tout tànk lañ. ay tout tànk lañ ci saa yi. Mm-hmm. xam nga 1886 bu fekkee dañ koy feeñ jamono. wasës. jëy sësin. sëñ bii dem ci géej gi daanaka ku ci matal fukki at. Mm-hmm. du du du ci am sax. da nga dana ci mat. ah léegi nag nga mën a taxaw loola dem ba jamono jooju ba 63 nga xam ne julli nga jumaa ji ba noppi nag delluwaat nag Mbacke Bari maami kii di Serigne Cheikh Thioro. Mm-hmm. moo waral tey màggalug Mbàkke Bari nekk ci seen ci seen ci mm-hmm. seen ci seen ndax sëñ Fallu moo ko tërbiyee ndax sëñ Cheikh Coro da nga bàyyi xel ne sëñ Cheikh Coro sa loolu mi sëñ Cheikh Absa la sëñ Cheikh Absa sëñ moo rata sëlee ko jur kon moom sëñ bi lépp ma ndax moo goy juróom ñoo bokk sëñ Mor Anta Sali mm-hmm. te sëñ Cheikh Absa mi nga xam ne mooy way jërim ku sëñ bi gërëm la ndax sëñ bi daana wax ne moom de dafiy indi rek waaye du fi jële mhm. dafa jaayoon li mu bokk sëñ Tuubaa ci bokk lépp sëñ bi doyloo woon ko Daaru Salaam jàpp ci nekk ku sëñ bi wóolu woon